waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistant bi ñu fi teew nuyu mbooloo bi ñëpp di woo ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sama adversaire di ko wax ni rek jour bi incha allah rabbi na taxaw si biir géew bi rek wax bi sifflé a bu bëggee ñu teg suñu reliquat seen fay bi ñu nii billaahi wallaahi barki Serigne Babacar Sy Malick ba adversaire taxaw dëgg taxaw. loolu waat man waaruma pour dara mais dama ko dëgg sa bopp waaruma ay dama lay daan dama ne nga dëgg sa ñëw li kay ñu dégg ko buñ waat asalaamaaleykum wa rahmatullah dinaa buñ sant yàlla julli bi ñu ngi sant suñu waa ñaari waajur bu baax di nuyu suñu papa yi fi teew bu baax a baax di nuyu suñu papa di nuyu suma grand Pape Sarr di nuyu suma gars yi ma àndal ñoom Bala ñoom Pagala ñoom Dieng comprendre nga kii dégg nga wax lu muy tombeel le 25 lu muy tombeel dimanche da ngay dem dëkk ba lekk yàpp naan ñëw bu yaroo ma duma ko bu fi jënd jëndee teg si bagage bi da koy jënd takk ko yóbbu ko bawal maa ko man maa ko bu doole maa ko dàq bëri ku jënd ci bisaab maa ko taxaar forox duma jaaxal man mënu ma xool sama maam man su ma dëggee ña waaw su ma dëggee ñëw sama maam bëri dëgg la dëgg la woon dëgg la respecté dama ñëw amul sens yow du la ma yow si biir géew bi man yow du la ma yow man yow la dama ñu la fal si ñu sa yow dafa tànn ko man yow la mais man yow la ma duma yu duma yu metti su bëree ma daan la sama yàlla baax na parcelle laa yeewoo. yaa ngi taw na déggoo ma de. waaw gannaaw bi ay jéego yi parcelle ak yow gannaaw bi nga yeewoo si biir géew bi. damay la nga yeewoo nga yeewoo si biir géew bi ay parcelle amul solo. déggoo ma de mën na ko yeewoo naa yeewoo naa la mën na yeewoo naa ko xool ma. déggoo yow mën na ay parcelle mën na ay parcelle ma ko si biir. may la mën a yeewoo la. voilà waaw d' accord sama paj bajee ma dumbal ak yow waa Pikine. may la mënuñu ko la gaaw a nekk nii nga administré rek. waaw bu ci yëngu rek. waaw bu ci yëngu rek. li ma lay wax soo ko ñemee dama. du mën a yeewoo gi daa bari dama ne. loo bëgg li may wax soo ko ñëwee ñu teg suñu li nga. demal des na jaay ñu ngi nii nañ ko rëdd. nañ ko signal léegi ñu ngi nii nañ ko rëdd. lay wax si suñu sol bi nga sol. waaw ñii dama leen di jaajëfal bu baax di leen kontaanee di leen ñaanal di amal tawfiq di wax jàppale nañ làmb. Ah. àdduna ñuy la. ñeneen ñi baax a baax te ñun mbër yi ñu koy solo tamit ñu di leen dëkkee jaajëfal mm. te xam ni làmb espoir la mm. tey boole meeru taxale ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kii dama koy daan ba pare fekk këram tëral ko ah, kii dama koy daan fekk këram tëral ko jox ko ndóol jërëjëf jaajëf mbër waaw di woo nag waa parcelle yëpp di woo dama koy woo ndax c'est la famille xoole dañoo sonn ñu ngi woo di ñëw nañ bàyyi suñu liggéey mu ne yow ñoo remercié famille xoole dañoo sonn ñu woo di ñëw mu ne yow ñoo fay nekk sa bio bi damay dugal daan la jërëjëf merci beaucoup jërëjëf